beaucoup de plaisir même mhm. pour mu man cee wax ndax li ko waral mooy dañoo toll ci jamono joo xamante ne tab gu ñor la ñu war ko bënn muy importance bi jigéen am ci àddina bi mhm. te mel ni àddina da ko bëgg a foyee loola moo taxoon biñ ma joxee content, bi ma am ci contente mhm. contentement boo xamante ne mënuma koo mënuma koo mënuma koo expliquer ah. ndax li ko waral mooy tey ki ëpp importance ci àddina moom moo ne nañ ko won moom lan mooy importance muy jigen tam bi ñu xajoon ko ci ay ay fan, fan bi ci jëkk moy kan moy jigen ñoon ne jigen moy mbindef mi yalla gënal ci mbolem bindef yi ndax ci mbindef mom rek la yalla sak usine bo xamantene moy liggey doomu adama ba nopi suñ borom dimbulé ko lo xamantene mom numu mel rek non lay juré mom jigen ba taxna su tangé dom di day tang, su sédé dom di day sédé jikko ji mu ëmbaale rek mooy nekk ci doom ji kon jigéen moomu préparation bi waroon ci moom ci ay jikko ak ay melokaan loolu lañu ñu indi woon mu doon premier euh, chose bi waaye ñu indi aussi jigéen fi ñu ko fekkoon démb avant tey ñu ñëw ci thème bi mooy jigéen doon na kuñ doyadil ci àddina doyadil gi ñu ko doyadiloon ci àddina Seydina Mouhamad moo ko ci jëlee ndax Seydina Mouhamad moo ñëw wala ne kii ngeen di fooye tey moo fi gën ngëneel li mu gën li mu gën lépp Seydina Mouhamad wane ko wan ñu ne du ku ñuy fooye mais du ku ñuy jaay comme ni ma ko waxee ci biir thème bi ne fekkoon nañ ko muy doomu aadama ñu daan ko jaay ngir ñàkkub dépense wala ngir bañ ak doyadi fekkoon nañ ko mu doon koo xamante ne doomu aadama la ñu daan ko jàpp di ko suul muy dund ba yàlla wàccee ci ab aya walla ci saarub woo xamante ne saaru alxuraan la yàlla tudd ca bàkkaar yu rëy yooyu nga xamante ne ñu ngi koy def ba dig ñooña na leen bu ëllëgee dinaa leen laaj bàkkaar yii ñii defoon ba tax ngeen di leen rey muy wax wa isal mawudatu ilet bi ay zambin qutilat donc li lépp lépp lu ñuy wax rek dafa doon loo xamante ne euh, lu fi amoon la démb ci jigéen ci doyadil giñ ko yoon ak ñàkk solo giñ ko ñàkkaloon solo yonent bi mu li lim njëkk woone mooy ni jigéen moo fi gën bu ko kenn foyati jox leen ko cër yi mu war a am ci biir wax ji may leen jigéen yeggoon na ci du donn du donn baayam du donn jëkkëram bu jëkkëram dee perte na bu yaa baayam dee perte na yaayam dong la daan donn te yaayam sax léeg-léeg ñu jaay ko doole ba du ca jël dara Seydina Muhammad wax ne ci dafa war a bànneexu jëkkëram bi muy dund te bu jëkkëram dee dafa am part ci alal ji jëkkëram yi wane ne kon doon na koo xamante ne nii kenn waru koo xañ li mu am ni góor war a amee noonu la jigéen war a amee mais jigéen dañ ko réserver loon moom góor rek lañ ko réserver loon ci àddina su amul góor du dara yeggoon na ci ay jamono aussi jigéen daawuñu wax ne sëy na ak sëyut foo ko fekk rek boo ko bëggee tëdd tëddee ko ci dëkk arab ya noonu lañ doon dundee booba fekk yonent yàlla Muhammad ñëwagul bi mu ñëwee moom moo leen woon ne la yéen a ngi foyee li gën te ana kan ci yéen moo bëgg ñu foye yaayam comme kenn bëggu ko kan ci yéen moo bëgg ñu foye sëram kenn bëggu ko kan moo bëgg ñu rey yaayam kenn bëggu ko kan ci yéen moo bëgg ñu rey sëram kenn bëggu ko mu ne kon xam ngeen ne li ngeen ne kon dégg démb baaxul parce que kon yéen ñii di rey jigéen xam ngeen ne jigéen a leen jur yéen ñii di toroxal jigéen xam ngeen ne jigéen moo leen jur kon su doontoon ak jigéen yéen nu ngeen di juddoo kon na ngeen dellu si waat fonkal yàlla mbindeefam moomu di jigéen parce que mbindeef moomu bokk na ci mbindeef yi gënal yàlla ci kaw suuf foofu lañ lañ lañ lañ lañ ubbee thème bi soog a ñëw nag ci rôle bi jigéen war a so ci société bi ma ma wane ne mooy médiatrice bi gën a rëy moom lépp lu fi mën a am jigéen a ko daan def foofu ma joxe fi misaal ci ñaari waxambaane yi doon xeex ngir jëmmi xale bu jigéen Banyu ñuy di dóorante gars yi di atte suba ba ngoon mënuñu leen a atte benn paa bu yeewu ne leen ki leen mën a atte mooy ki leen kiñ nopp ana kiñ nopp ñu ne mi ngi ci biir kër gi mu dugg ci biir kër gi ne ko ñii de ñu ngi ñun atte nañ ba son waaye yow dong yaa atte mu ne ko papa legi ma ñëw xeex bi jeex mu defaru ba mel ni jigéen génn si ba mu génn see fekk gars di kurpeñante naka lañ ko gis rek kurpeñ yi tar ndax ku ne bëgg ngaa wone sa mu taxaw ci seen ne ku ma ci sa loxo laal doo ma jël gars yi ku nekk wàcc sa loxo naan sa morom laal ma ndax kenn bëggut a ndaw si ndaw si ne leen nag léegi yéen ñaar ñëpp laa nopp mais léegi may tànn bàyyi leen ma tànn pour ma tànn nag da ngeen may may tànn bu leen xeexati bu leen xuloo bu leen coow ngir man man maa maa tànn may am droit tànn te man maay tànn léegi nag ku ma tànn ci yéen keneen ki ñàkk d'accord ngeen ñu ne waa mu ne dem leen bu ma tànnee naa leen wax ki ma may leen loolu média médiatisation boobu jigéen moo ko def coow yi am ci àdduna bi yëpp aussi li ci ëpp jigéen moo ko réglé kon loolu dafa am dafa am solo ma indi ci itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sulul xuday bi bi bañ ca yeggee ba ba ba yonent bi sallallahu alayhi wa dem ba saxaaba yi ñoom ci seen bopp di wane seen naqar ci ñàkk a dem gi màkk ak yooyu ba leen ne na watu te armalu ña dañoo bañ mané jigen mo yow ci mom muy soxnam né ko ñi dañuy soob rek yow rek liñ bëgg yow defal yow li la yalla sant nga xol bam wato bi mu armalo ñom ñepp ñu def ñu yonenti mu ne luma la waxon ñi mu na mëno mënu ñoo dem bala ndax yow rek liñ bëgg mënu ñoo gantu sa digël ndax yow rek liñ bëgg wante nak faaw ñu jëm la nattu ci ñom liñ bëgg mané kon jigen importance bi ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam joxe won ak bi mu samul won ci mom gis nañ ko gis nga Jésus Christ bokkoon na ci mission am défendre jigéen ak xale bu ñàkk ay waajuram mu muy orphelin ak ku néew doole muy ku yàlla wàññi ci feebar ñii bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dafa bokkoon ci mission moo taxoon mu doon koo xamante ne ne yëbriwul ma daf daan fekk koo xamante ne nii da ngaa da ngaa da lu mënoo wax mu wax loola ci saa si mu fekk gumba mu wax loola ci mu xool loola ci saa si mu fekk ku tële mu ñaan yàlla nga am ci saa si kon loolu nga xamante ne mi ngi ko doon def mi ngi doon wane importance waaye li ci ëppoon def daan wax ne jigéen ñi na ngeen leen jox seen rôle bi ñuy joué te jox leen cër ndax na ngeen xam ne jigéen rek moo fi taxawagun jur doom bu amul baay loolu ci importance la. yaayu Jésus Christ rek la yàlla tuddee benn saar ci alxuraan muy sóoratu Mariam moom la yàlla tagg ne mooy jigéen ji nga xamante ne moo gën a fidèle ci jigéen ñi. wal maryamu lati ahsanat farjaha moy jigen jo xamantene ne musuko lal te mo am jàpp te mo am dom lol lepp yalla diko woné wane ci jigéen kawteefi jigen ni dafa bari kon nit ñi war nañoo jàpp ne jigen kawteef la jigen cër la cër bo xamantene yalla moko sagalé adina sagale moko sagalé doomu adam kon suko doomu adam ci xaané def musiba nañ fonk jigen ni ndax ñoy suñu yaay ñoy suñu sœur ñoy suñu bàjjen ñom ñoñu lañu am ñom ñoy ñuy dalal sa so xamantene dem nañu ba suñ àddina jaxasoo kenn ku ne si jabar ngay wuti lii mooy li nga xam ne moom lañ fi doon débattre thème comme thème bi tey mm. macha allah mooy en gros jërëjëf.